2024 euh, sa première réaction bon en tant républicain xëy na damay jégalu ministre parce que bu ministre toogee xëy na ñun balaa ñoo wax war na war na àddu ba noppi ministre ñu ngi lay jégalu loolu euh, mais mun na di wax ni ko Cheikh waxee léegi nii rek tey bis bu historique la ndaxte euh, sénégalais yi xëy na bëri woon na ñoo xamante ni si nekkoon nañ ci ay xalaat ay xalaat yoo xam ne ku ci nekk mën na koo tënk fi mu jàpp ne moom mooy angle bi mu gisee président de la république fàttali disposition yi nga xamante ni si constitution bi moo ko biral wane ne moom am na sañ-sañu nekk candidat waaye nag moom moo jël ci responsabilité boppam malgré ñun ñi nga xam ne ànd nañu ak moom yaakaaroon ko bëggoon mu nekk suñu mbër ndax jàpp ne aussi moom moo ëpp chance pour mën a wéyal li nga xam ne laloon na ko muy plan Sénégal émergent jàpp ne aussi li mu defoon ba ñu yegg si fii xëy na dinañ am chance dellu ci débat bi muy bilan bi nga xamante ni si ñi nga xam ne ñoo ko noonoo sax nangu nañu consistance am loolu yëpp taxoon ñu jàpp ne fii réew mi toll ak enjeu yi ñu dëgmal président de la république Macky Sall moo nekkoon le candidat idéal moom nag moom moom cëggal guyam tey moom moo xool ci fi mu toll ak ni mu gisee ak li mu yéene mu jàpp ne warul nekk candidat wax na ko amoon na sañ-sañ bi waaye moom moo jël décision souveraine comme ni mu ko waxee woon daal di renoncer à sa candidature mu nekk loo xam ne ala li haal dinañ ko saluer ndax it lu ñu bëgg-bëgg Macky Sall nekk suñu candidat moom mu amoon yéene bi amoon engagement bi amoon flam bi mooy tax ñu mën a dem vers des conquêtes comme ni ñu ko bëggee parce que nag candidature dafa nekk lu metti di laaj engagement bu bu bu bu bu profond bu entier bu fekkente ni moom yëgul engagement boobu doon pour demaat vers ses vers xëy na moom dina am sañ sañu ne ne bàyyi naa beneen bi aussi moom mooy tey jii nii ñun bu ñuy xool de man personnellement mun naa pour sama bopp damay xool ak perspective bi ma nekk man ak ni ma jàppee ni loolu moom moo gën ci réew mi moo gën aussi ci président Macky Sall mais moom président Macky Sall aussi am na sañ-sañu xool par rapport ak ay perspectives personnelles am à titre personnel loolu aussi xëy na waruñu ko perdre bi mu renoncé à sa candidature loolu ñun ñëpp xamoon nañu ko avant muy renoncer bokku de perspectives ñu ngi offrir à lui par rapport à l'Afrique par rapport au monde bëri na ay ubbeeku yoo xamante ni si dina ko am loolu it xëy na duñ ko ko xañ parce que am na ay aspirations personnel et individuelles yoo xam ne moom rek moom moo ko mën a wéy bi ci topp nag moom mooy li mu wax ne kàddoom aussi tënk na ko parce que donte yoon mayoon na ko moom xaatimoon na waxaat waxaat ni kat moom du nekk candidat donc loolu it dañ ko koy nangul parce que loolu sañ-sañam la mais man personnellement wax naa la ko sànq bi mu jeexee je ne cache pas ma déception parce que jàpp naa ne luy l'homme Macky Sall au-delà de toutes les qualités yi nga xam ne ñi ko koy prêter ak li mu fi am ci taarixu Sénégal il était le mieux placé pour encore beneen mandat boo xam ne day consolider nos acquis surtout que dañu nekk ci virage